asalaamaaleykum ami chers fidèles internautes maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte janoog yéen ci seen chaîne leader bi leen di Equivox euh, TV tey nag boo leen ñu gisee fi ñu nekk ngeen xam ne rek ñu fi nga xam ne rek moom mooy ñi euh, euh, Géej ci li nga xamante ni rek moom mooy drame bi fi am ci wàllu li nga xamante ni rek moom mooy mbëkk mi ay xale yu ndaw daal di fi wàññeeku ñu tooga nag kenn koo xamante ni rek waajur la ci ñoom dañ koy daal di nuyu rek ziar ko bàyyi ko rek mu présenté wak ñuy seetaan tonton ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la masawu ci lu ñu bokk. masawa la maa ngi leen di fay di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla man maa ngi tudde Cheikh Tidiane si Ndour doon rakk si Babacar Ndour mi jur xale yi man maa ngi Cheikh Tidiane Ndour maa topp ci moom ñoo bokk ndey ak baay waaw sama mag nag moo jur xale yi mooy xalifa Babacar Ndour. Hmm. xale yi euh, ay at at ñaata la tolloon. Euh, daal kenn ki mu ngi juddu 94. environ mais kenn ki rak du tofam mais am na ku topp ci moom moom mu soog a ñëw topp ci waaw ay ay ay ay sœur lañ ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay. ay jigéen ay jigéen lañ ñoom ñaar ñoo bokk ndey kii mu ngi tudd am Ali Ndour lañ koy wooyee fii mais ñu ngi ko tuddee Adama Ndour suñu benn grande sœur lañ ko tuddee kenn ki mu ngi tudd Awa Ndiaye mais nduur la sant ñu ko tuddee sama benn umpañ boo xam ne moo yoroon papaam. dañ doon jàng wala ba métier lañ doon. jànguñu woon dañ doon liggéey kenn ki mu ngi doon liggéey si benn société bu nekk Dakar d'ailleurs euh, DGA bi ñëw na fi léegi ànd ak ay seen membre yu société ñëw nañu fi sànq doon jàll si keneen ki mu ngi nekkoon UCG foofu lañ doon liggéey. Mhm. ndax ba euh, euh, maanaam dox ay tànk pour dem ci li nga xamante ni mooy gaal bi jégoon ngeen. déedéet loolu kenn du ko yëg fii kenn du ko yëg les concernés rek ñoo koy yëg xale yi ñooy def seen pexe bopp. ba dem mais ñoom ñaar ñëpp ñu ngi doon liggéey d'ailleurs kenn gi salaire am jotu ko woon récupérer sax def naa démbale salaire am génne fekk fekk na mu wàcc liggéey mais ke doo leen yëg parce que amul amul wàccaay amul këyit booy toppatoo yow yaay lijjanti sa lijjanti dugg si gaal yi dem fi mu nekk nii bari ñi def naa bari na ñoo xam ne ku sa doom génn da ngay tiit doo ko ñemee laajte bu fanaan siwul sa kër da ngay tiit doo ko ñemee laajte parce que feneen man la boo xam ne ni kenn xamul lu xew waaw noonu la demee. léegi ba ñuy dem kenn yëgu leen seen papa yëg na ko mais tardivement bi ñu demee ba pare la ko yëg ñun daf ñu ko ragaloon a wax waxuñu sax lan moo xew ba bii daraam bi amee si la wax ne est-ce que xam ngeen ne diw ak diw ñu goon ci gaal gi ñun noonu lañ koy niñ ko yëgee dafa am ay respect ay rescapé parce que gaal yi bi ministre bi demee wax ne am nga gaal bu daanu foofu am treize morts yu ñu fekk si gaal yi am ñu des si ndox mi am na ñoo xam ne bari ñu lañ dëkk. ñooñu xam nañ xale yi ñoo ñoo wax ni xale yi bokk nañ si bon gëmuñu ko woon parce que xaw na yàgg tuuti mais ñu toog di seet ay lu ñu wér lu wóor ñu seet lu wóor di wóor di seet lu wóor di seet lu wóor finalement ñu ne comme daal ñi wax nañu te kenn yéenuwul nit dee bay jël keneen ku dee di wax ne diw ñu dëj waaw noonu la demee gaal bi euh, déedéet dafa daanu tefesu Mauritanie xam nga gaal bi dafa dem ba biir géej xam naa géej bi am ganax yu rëy ñu wax ne mu wàcc si dal si bang bang doo leen ko xam bang dafay nekk loo xam ne suuf lay doon mbaa xeer nekk ci géej si bunt géej bi la sax li li ñu wane si Facebook boo xoolee fees di nga si gis benn gaal bu ñu wane noonu am lu weex lu nekk ci biir géej loolu mooy bang ñoom foofu lañ dal gaal gi sànni leen ñi mën fay génn nañ daw ba léegi sax ñun ñi ñu toog ni xamuñu lu xew xamuñu ñan moo fa des xamuñu ñan ñoo dee mais suñu maire bi def na effort ba fret na ñaari bus la ñu wax am nañu ñëw biig ñoo yegsi nañ mais amaguñu renseignement si ñoom am na xale bu fi ñëw sànq moom ci la bokkoon mais dafa ñëw nuyoo jaale dem tëddi nelaw waaw si rescapé yi la bokkoon waaw mhm. napp yi dafa fréquent fi nga xam ne moom mooy euh, Bargny ndaxte lu bëri fii lañ koy dégg lan moo waral loolu xale yi dañoo amul xëy fii wala lan moo waral lu ni mel. déedéet déedéet parce que boo ñëwee si kër papaam nii moom moo fi dëkk ak benn soxnaam ak njabootam ñi fi dëkk ñëpp ñoo bokk ndey ak baay papaam laborantin la euh, mu ngi liggéey si hôpital Youssou Mbalgane kooku ngoon ñi amuñu pression sociale amuñu pression amuñu benn soxla. keneen kii ci ki mag ki ren dafa ànd ak papaam moom moo ko jëndal xar tabaski ngoon kooku amul pression euh, sociale keneen ki UCG la nekk amuñu benn pression sociale mais dafa nekk loo xamante ni phénomène la lu jaaxal nit ñi lu jaaxal àddina la surtout ñun waa ñi jaaxal nañu lool lool lool ñu si ñuy motiver xale yi am na ñu demoon daaw am ñu demoon 2006 ñooñu ñoo ñii ñoo fi nekkoon te gën ñu leen doon ay jàmbaar ñi fi des nag bi affaire bi ubbee kenn xamul nu mu demee. mais li fi dem ci ga parce que bari ñu kenn desu fi xale yëpp dem nañ loolu moo tax ku dem yegg boo defee vidéo mbaa ojo nga wax ne ñëw leen xale yi dootuñu toog fu mu nekk amatuñu motivation pour liggéey fii parce que géej gi ñi yaakaar géej bi ñëpp amatuñu ku ñu àndal géej parce que géej bu fekkee ne sa gaal buy dem dafa yóbbu soixante soixante dix personnes minimum. amuloo amatuloo borom kàttan yu yóbbu gaal gi parce que gaal yi dafay yëpp soixante-dix personnes yëpp mbaal yëpp lu nekk pour nga mën a jàpp jën mais gaal bu dem noonu ngay génnewaat boo yi nag wax ne géej gi dara nekkut fi ñu commencé di dem ñiy jëkk di yegg yegg di woo ñu si des loolu moo leen di yóbbu mais ñun fi mu nekk nii ñëpp ñoo tiit waaw loolu daal moo ñu mooy li fi nekk si Bargny waaw ba pare ñiy jënd gaal yi dëkkuñu fi ñi si ëpp dëkkuñu fi ñiy jënd gaal yi dëkkuñu fi dañuy ñëw jënd gaal fii la ñuy jënd gaal yi mais da ngay jënd gaal wut benn xaleel boo xam ne mun na géej nga ne da nga bëgg mu yóbbul la gaal bi doo paas loolu koo ko wax amul xaalis mu seet may naa la ñaari place mbaa beneen moromam bu téye GPS bi keneen ki téye machine bi ñooñu ñooy ànd dem li ñu metti nag mooy ñooñu la ñu jàpp fi mu nekk nii parce que gaal boo jàpp bu ñu waxee kan moo ko tëgg li ñuy wax tëgg booy bu ñu la waxee ne diw moo ko tëgg doo ko gis. mais ñi nekk si gaal bi du kenn ku tëgg gaal dem ci yow yaay jël sa gaal laaj say paas def sa fare yëpp ci nit seet ku la yóbbul seet ku la téyel machine seet ku la téyel GPS ñooñu dem léegi bu ñu leen jàppee ñooñu la ñuy tëj borom gaal yi kenn inquiété wu leen loolu nag moo ñu metti parce que suñu doom yëpp ñu ngi sa kaso bi ay ñetti nit la ñuy jàpp si gaal gi ñooñu drone yi moo leen di signalé ñun bu ñu señoon daal ñu dimbali ñu ba mën a delloo nit ñi si jàmm xale yi nekk si jàmm ñu dimbali leen ñu dimbali ñu seeni kilifa aar géej gi parce que aar géej gi yaakaar naa ne moo gën a yomb tere ay marche parce que marche mbooloo moo koy def mu bëree bëree bëri mais gaal bu xësee ba dugg si géej day inoffensif ngoon armée bu leen ne kaay leen dañ koy topp drone yi mu ngi fi marine mu ngi fi ñooñu war nañu mën a jël point stratégie yi xale yi di tëmbe bari ñi la ñuy wax Kayaar Yaraax Tëngéej ak nu mu tudduti ak ay fas Boy foofu bu fekkoon ne teg nañ fi dispositif boo xam ne war na mën a tere xale yi dem vraiment ngoon dinañu gënal ñun ñun kilifa yi ñun waajur yi fi toog parce que fi mu nekk kenn xamatul looy def xale yi ñiy dee safu leen ñoru leen danga naan diw dee diw dee na ñu waaw teewul dañuy gën a dem. ndax ñun ñëpp ay jaboot lan ay yaay lan te lii si ñun la dal ñii gaañu nii suñuy mbokk lañ wax dëgg yàlla suñuy doom tamit euh, dem nañ wax dëgg yàlla mais lii daal kenn xamul lan la daal nattu yàlla daal nattu yàlla la daal di ñaan daal ñi siy génn àdduna yal na yàlla jéggal leen te yeesal yërmande si seen kaw ñin bàyyi gannaaw yal na yàlla teg si ñoom loxo euh, metti na daal fu metti mën a yem daal metti na trop trop trop ndax lépp barñi la te barñi benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar koo ci bokkul si ndey bokk nga moom si baay ñëpp lii daal métti na daal métti na trop trop. en yaay boo yëgee lii la la lay def en tant que. en tant yaay wax dëgg yàlla boo bëggee dégg dëgg rek dama si dama si feebar di si am ay stress dama si feebar parce que dama si am ay doom yu dem waaw am naa si doom bu dem yegg am naa si doom boo xam ne ba fi ma la koy waxee ni ma si lu mu ne dëgg yàlla ma papam ñoo bokk ndey ak baay ba fi ma la koy waxee ni xamuñu si lu mu ne wax dëgg yàlla te mu ngi bëgg am weer nag mu nekk lu metti nag lu metti lu metti lu metti waaw parce que tamit gaal yi ñu demoon dañoo wax ne dañoo teer dañoo sonn ba léegi wootewuñu ba fi ma la koy ni xamuñu si lu ñu ne ñu ñaan yàlla tamit yàlla mii mën a leeral rek yàlla na leeral loolu yàlla na leeral ñëpp parce que ñëpp a ngi toog di xaar kon yàlla mii xamante ne moo mën a leeral yàlla na leeral lépp ci barke yonent bi alayhi salaam nekk na lu metti nag waaw ban ñi gépp gépp gépp gépp gépp amul jàmm kenn amul salaam koo gis ak koo gisul koo dégg ak koo déggul kenn mënta toog xam nga ba léegi dégguñu seen ay nouvelle même gaal gi ba léegi dégguñu seen ay nouvelle am na ñoo xam ne ba seen ba fi ñu koy waxee dégguñu seen ay nouvelle am na ñoo xam ne dégg nañ leen mais ba tey am na ñoo xam ne kenn déggu leen mais am na ñoo xam ne ñu ngi leen di dégg dañoo yegg seegul wax dëgg yàlla ci li ma dégg fii daal ci dëj bi loolu daal laa fi dégg wax dëgg yàlla. xale yi xale yi jigéen yi des ci gaal bi fii tey ban témoignage ngay wax ci ñoom. waaw man xale yi xaw ma leen mais seen yaay sama mbokk la seen pap sama càmmañ la parce que sama saam ak ma bokkal benn pap ñooy ànd depuis xale moo tax sax ma ñëw si dëj bi xale bi tamit yaayam sama mbokk la ñoo bokk benn famille mais man wax dëgg yàlla miinu ma leen seen seen seen seen mag laa xam mais ay xale yu baax lañ daal lañ wax parce que seen yaay toog na léegi wax ko sama kanam waaw seen yaay neen xamuñu fen këram seen liggéey wax dëgg yàlla man xaw ma leen. Euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy jeunes yu nekk fii biir bañ parce que bu ñu nee trois cent jeunes yoo xamante ni vingt quatre rek ñoom ñoo ciy sauvé yaakaar naa ne loolu métti na. ah di wax xale yi rek ñu gën a fagaruwaat daal toog comme daal affaire bi doon na neex ñuy dem di leen dégg si jàmm ñu toog ba benn instant ñu ne dafa métti daal nañ toog daal nañ toog xam ne yàlla moo nekk fépp foo nekk rek yàlla dina la fa fekk xale yi nag dañoo bëgg dimbali seeni waajur rek yoon bi ubbi nii rek ku nekk dem ku nekk di dem ku nekk di dem. si yàlla dogal nga yegg booy déggee ñoom dañ la dañ naan ku yegg yàlla la mais fii kin andu fi kenn yàlla moo fi indi nit ñi mais du suñu jàmbaar du suñu dara yàlla moo ñu fi indi ñun ñi ngeen di gis nii kon sant yàlla am na suñuy doom yu yegg nag sant yàlla am na tamit ñu yeggul mais sant yàlla lépp nañ ko sant suñu borom rek metti na trop nag metti na trop parce que li bari ñu la daal metti na trop. ñu gis la gën a fréquent lan moo tax dafa amul liggéey wala xale dañoo désespéré wala lan. amul liggéey non amul liggéey amul liggéey wax dëgg yàlla amul liggéey amul ah, mu mu jàppale xale yi surtout ban ñi gi xamee ne dëkku dëkku ndox la mu jàppale leen jàppale àll bi tamit am na foo xamante ne buñ fa investir xale dinañ fa mën a toog liggéey mu jàppale leen daal état bi daal nañ dimbali jàppale waa Bargny jàppale lébu yi parce que lébu yi dañoo sonn tamit de moo leen dugal si lii daal. des fois da ñu bëri naan waajur yi ñooy teg xale pression. moo tax xale yi di di préféré dugg ci li nga xam ni moom mooy gaal. loolu gëw ko parce que man mii ngay gis ni sama doom bi mu njëkkee dem tàggu ma tàgg tàggu ma parce que xam na ne bëgguma ko wax dëgg yàlla àgg na si jàmm waaw keneen ki mu ngi fi mais dama ko ne doo dem bàyyi kii comme dina bari ci ba pare mais kon buñ ne ñun dañuy teg suñuy doom pression loolu wax ju yaaxu la lébu xamul loolu ñun bari ñi xamuñu loolu sa doom day liggéey indi yow nga liggéey indi boo ko defar. mais naan sa doom demal demal ah man dey duma def loolu waaw man dey wax dëgg yàlla duma def loolu waaw sama doom bu toogee fii xam naa dina liggéey bu demee dina liggéey mais nag de comme dem moo nekk si moom dem la bëgg ñu ñaanal ko rek mu dem mais man bëgguma ko xaw ma nag ñeneen mais man wax dëgg yàlla bëgguma ko waaw bëgguma ko moom wax dëgg yàlla mais comme teg xale yi nii. ñii dañuy wax rek mais loolu am kenn du na sa doom demal demal demal demal c'est loo xam ne ay risque la xamoo lan la mais nag bu dara amee xam nga rek rumeur day bëri mais sant yàlla rek daal sant yàlla mais waaw loolu lan wax mais man nag wax dëgg yàlla jaaleegu ma benn dëj budul bii laa fi jaaleegul waaw mais dégg naa daal bëri na fi mais wóoru ma wax dëgg yàlla wóoru ma waaw wóoru ma jërëjëf yal na yàlla fay leen yéen ñi ñëw di bokk ñun mettit bi ba ñi mu mën a ñi ñi mën see jot pour ñu invité eh, lii xew nii yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen euh, maasaw yéen tamit ñoo ko bokk lépp ñoo ko bokk yal na yàlla fay leen yiw yéen ñëpp si barke yonent bi alayhi salaam yal na yàlla fay leen yiw